Bienvenue sur Salam Vision. auzubillahi samiil aliim mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزيل على الدين كله ولو كره المشركين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu santaate yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom bi wa taala mu defal ñu am na jàmmi alaaxira defal ñu sutura àddina sutura alaaxira defal ñu xéwlu àddina alaaxira tabaarakallaahu du nuyu képp koo xam ne tabaarakallaahu yaa ngi saxoo di ànd ñun di seetaan émission bi di al Vision di xam ak xamle ànd ko Oustaz Ibrahima Diarra

di baaluwaq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal réew mi fi yàlla jàmm mbas mi nga xam ne moo lëmbe fi yàlla jëlee bu mel ni fa tabaraka allahu comme ni nga koy waxee rek yàlla yàlla defal ñëpp jàmm dëgg yàlla fan yi réew mi doy na waar waaye nañu sant yàlla rek fekk yàlla nga lay may wër rek la lu ci doole rek kon yàlla nañu yàlla may santé ndax la santé yàlla ko ndax wér kenn yàlla mayee ko jot waaye loo mën a am te amoo wér am dara kon yéen ñaan koy waxee rek am na amul dañuy jël mesure de yi ñu sant ndaxte ku ci daan fa tabarakallahu di nga naq day yëkkati waxuma sax yow waaye sa njaboot waxuma sa njaboot waaye sa dëkkaale waxuma sa dëkkaale waaye sa àndandoo yi kon bu ñu waxee ne am na ñu mën a moytu nañu moytu jël mesure de barrière yi moo gën ñuy yooxu nan amul ndax kat da ngay faroo balaa ngay lakkale te rëcc day fekk jëf wees kon nañu xoolaat suñu comportement xoolaat suñu taxawin xoolaat suñuy jëfin ndax fa tabarakallahu di tubaab bi yaakaar naa ñun ñi yàlla moo ñuy dimbale yàlla yàlla doon dimbale dañuy wax ni feebar bi nag yar la laaj réew mu la gën a yaru rek dana fa jóge waaye réew mu la gën a indiscipliné rek dafay des kon li ñuy def ci mi ngi jiitu ci njaboot bi mooy yar dañu ànd ak yar nañu ànd ak dal waxuñu ko nag pour kenn mais dañ koy wax ngir ay doomu aadama ñu doon ci kaw suuf am wàll ci réew mi wax ci mën a wax mel yéen ànd ak seen téere bi Allah dari bi toll ci wal boobu wal boodu muy nay jullit du nay jullit du nay nit bu nay du jullit ndax Seydina Muhammad mi nga xamee ni mooy suñu référence moo dàqoon joxe ñëpp daraan joxe di joxe di joxe di joxe di joxe ba dese benn tàndarma bilaal mu doon dégg daf ko doon ñeewant su ko defee buy laaj bilaal benn tàndarma pour joxe bilaal da koy téye di ko nga ko doon lu ko bilaal joxe ma ma joxe ndax boo joxee yàlla jox te yàlla ku dul joxe doo dem àjjana waaw maanaam joxe kat kenn du ko jiitu àjjana waaw joxe kat kenn du ko jiitu àjjana joxe kiy joxe ak ku dul joxe duñu benn Seydina Muhammad nee na kiy joxe mooy sangu kii jël yàlla doon yaa xayru min yadi sufla nee loxo biy joxe mooy sangu loxo biy jël kon joxe buux du jullit du nay mos na rey gàtt moom rasulullah séddale gàtt gi yëpp ba mu ay mbaax ak ay butit seen naa si ni ko waa yaa rasulallaay yàpp yi ci baax yëpp joxe ko la jël yu boole ñu koy lekk mu ne ko nit ci joxe nañu am li ñu nekk lañ ñàkk kooku moo mën a joxe waaye tey ñun nii ku ci ren xarte yaakaar naa lépp danga koy daggati danga ko sacrifice di dagg di lekk doo xalaat sax ñu nga dëkkal lépp dafa bokk ci xeetu nay mu ne wal buux du ak nay jullit du nay waaye ay nay nag ay façon la dañuy wax ni góor moom tawe mais jigéen moomul tawe jigéen dafay nay ci boppam dafay nay ci boppam mooy soo defee ni jigéen dafay nay ci boppam waxuñu mu ci joxe mais nan nay ci sàmm boppam bu góor du ko ñemee ba bu génnee kenn ko ñemee piis kenn du ko ñemee xol bay loxo di ko teg sa kaw yaram ñu ne jigéen dafay nay ci boppam waaye góor dafay tawe tawe boobu mooy fa tabaarakallah moom it dafa war a mën a joxe ci jigéen son na ci jigéen ba yàlla may ko ndam ci jigéen waaye bëgg xal yéen di bëgg a dagg sa loxo bi ni doo def ci moom wax dëgg yàlla moo tax ñu ne ñaar ñooñu li ci jigéen jigul góor waaye li ci góor jigul jigéen ci ñaar yooyu dañu wax ne jigéen nay moo ko arrangé góor tabe waaye góor nay arrangé wu ko tabe moo ko arrangé jigéen nay ko arrangé maanaam boo def fa ak xool bëtu nga ne la ala xeer ci keneen nga xool nit ki di naan ko maa la gën di xool bëtu nga ne la parce que ci état bi lay liggéeyee wala doomu sëriñ la wala doomu magistrat la wala doomu policier la wala doomu jàppale yaa gën doomu mécanicien bi wala doomu soudeur la yaa gën doomu bi wala doomu sëriñ la yaa gën doomu doomu doomu doomu doomu yattakat bi wala man doomu doomu doomu magistrat la maa gën ki nga xam ne tey day day day day rax oto yàlla ne la juum nga ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla inna akramakum inda llaahi atqaakum moo tax mu ni warootu fadli ngay xool bëtu ngëneel ala xeer ci keneen waroo di xool kenn ni yaa ko gën waaw di xool bëtu ngëneel ni nit maa ko gën te yaa leen ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla waxul ko sant ñas waxul si waxul ko sant faal waxul sant màkke waxul ko sant njaay waxul ko sant jóob waxul ko sant sant li ki gën ci yéen mooy ki gën na ma ki ma gën a bàyyi xel ki gën a ragal yàlla kooku moo gën ci yéen kon kuy xool bu dugganeel kooku moo war a waaye ça ne va pas dire nekk ci étage kii nekk ci baraak wala nga nekk ci baraak kii nekk ci néegu ñax nga jàpp ne yaa ko nga déedéet juum nga yaa nee na jullit du xool moroomu jullit te matu ngëneel ndax boo xoolee fi nga jugee waroo jàpp ne yaa gën kenn ndax yéen a bokk kullukum min aadama aadama turabin yéen ñun ñëpp ci aadama lañ jugee te aadama suuf la jugee bi ci ñaari ba allah naxluqukum min maa in mahinin kenn ku ne maa ngi la bind ci ndox mu doyadi kon nag bëggee jàppee sa bopp ni yow beneen ndox la la bindee keneen beneen ndox lañ ko bindee ba mais ndox mi te yéen ñaar bokk benn bi leen bindee muy àllam ndox noo kum min maa in mahinin fa jaalnaahu fi xaarin kon nit ki doo jaay nit ki bëtu ngëneel doo ko jaay di ko nii laa mel borom subhaanahu wa taala ko te ku ko ci def ba dee yàlla dugal la safara mu ne wala hamza ay bët ko fi teewul ci bët am na ñu koy firee gàncax am na ñu koy firee piis am na ñoo xam ne wal hamzu dañuy wax ga ak kii piis wal lamzu ak gànnaxu waaye am na ñu koy firi ayibul ko fi ci bët boo déggee ñu ayibul ko fi teewul ci bët mooy tey ma toog Zeyna toog euh, Saam toog Daawuda toog ma bëgg wan Daawuda def kat yéreem daa xotteeku mu xooloo mu xool ko ba ne ko nii yàlla ne loolu xaraam na loolu xaraam na ku ko ci def dangay am bàkkaar maanaam bu ma hamzu ayibul ko fi teewul ci bët mooy koo xam ne koy nii xool bët bi def ko nii ni ko nii mu xool ko nga ne ko xoolal yére mu xool yére bi gis daa xool xottee ko wala ci làmmiñ tamit ko ki nga xam ne teewu fi ci làmmiñ ngay wax ci moom naan nii la mel nag wala naa la wala comme ni ma ko waxee léegi am ñoo xam piis lañ nit ki dox nga ko pour mu gëstu ñu ne yooyu xaraam du ko def ñu ne nga xool ko def nii mu xool nga ko nii wala nga xool ko nii mu xool sa làmmiñ ñaar yooyu yëpp xaraam na maanaam moo xam su ay bët ko fi teewul ci bët wal lamsu aybat ku fi teewul ci làmmiñ wala abasu ak foo foo daa xaraam maanaam boo bëggee dégg ñenn ñi di di daganal yéen ñi naan fan lañ ko foo foo jàngee lii dafa xaraam ak xaraamul foo jullit du foo jullit du maanaam boo xoolee foo ma tax ay làmbak boo xoolee ñu ne football dañ ko sibag lépp ci xeetu foo la bokk te foo dafa xaraam li Alaaji Maalik waxoon nag moo fi ne si moom Cheikh Seydi Alaaji Maalik nee na wa maa kaana ayiban saara xusnan tawafaxan nee na lépp lu ñu ay boloon yàlla bañ ko ñoom ñu fi nekk di ay borom xam-xam ñoom ñu fi nekk di woote lislaam ñoo koy jéem a rafetal di ko jéem a rafetal ngir lan ngir seen bakkoon àdduna wa ma kaana ayiban saara xusnan mu tabaxam ñoom ñëpp dem dem nañ ba mujj gi ñoo ngi dëppoo ci lu ñaawoon lépp bëgg koo rafetal te lu ñaawoon nit mënul wax wax ba mu rafet waaye lu rafetoon nit mënul wax wax ba mu ñaaw kon foo jullit du foo afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna laa la yàlla ne ndax dañu leen njott dama leen indi ci ko suuf ngir ngeen di fo kon ku ñuy tere fo nekk ci làmb yi soo fa jógee ci tànn béer yi boo fa jógee ci yi boo fa jógee ci sabar yi yaa ngi ci football bi bu ñu waxee ngay lay lay lay lay lay lay lay indi aaya bu la neex indi hadis bu la neex indi hadis yoo xam ay daif la kenn xamul hadis yi fu mu jógee doo indi mukk ko solo mu wér nga taxaw tey di rafetal yoo xam tey wala di daganal yoo xam tey borom subhaanahu wa taala xaraamal na ko te lu yàlla xaraamaloon nit mënul wax wax bu mu waaye lu yàlla daganal nit mënul wax wax bu xaraam kon wala abus ak foofu wa suxriyatu ak di reetaan doomu aadama di ko xaqataay di ko xaqataay di ko reetaan loolu ci jaaru xeeb doomu aadama ndax ku tiim doomu aadama di ko xaqataay di ko reetaan yow doo nit ndax reetaan teel na moo tax mag ma mu toogee ne ci nekk ci euh, mm, palanteeru Siraj Malik ñuy waxtaan di waxtaan bay xaqataay loolu ñëpp ñëpp Siraj Malik ni ko woo leen ma ko ñu wax bu mu ñëw mu ne ko nekko reetaan teel na na bàyyi ba ñetti fanu bàmmeel fal tadxaku xalilan wala yabku kasiran jazaan bi maa na du ngeen du lu bare bare bare bare bare tey reetaan tuuti waaye ñu ne dañuy reetaan bay xaqataay mel ni jag nañu te fekk na jaguñu nag te foofu fekk koo xam ne moo mën a reetaanaate koo gën a jage di nag foofu fekk ku jage rek mooy reetaanaat ku jag du du du def mukk lu jage mais ku jage di rek mooy def lu jage boo xoolee ñuy def lu doy di ñëpp dañoo doy di képp ku gis ñu wax ci yow lu bon rek daa bon mais ku baax rek moo wax ci wax yoo baax ndax foofu du si in laa yoxte yi nit du joxe lu mu amul nit du joxe lu mu koo dégg mu naan Zeyna daa bon rek kooku daa bon koo dégg mu naan Zeyna njaalukat rek kooku njaalukat koo mu naan Zeyna daa bëri dafa bëri waaye koo dégg mu naan diw daa baax diw daa baax diw daa baax rek kooku daa ndax foofu du si in nit du joxe lu amul kon lu la waaye ne loolu am pour may la ko ndax du la may lu mu amul ndax wax ju bon la am faa mu jox la wax ju mais ku am wax ju baax nag wax ju ngay joxe waaye nit bu la waxee da ngaa bon waru laa déranger reetaan nag xam ni loolu la am lool la la mën a may ndax boo joxee de benn baaraam bi ni doomu aadama yaa baax jàpp ni juróom yëpp ci yow lay dellu si waaye boo ko joxee ni ko yaa bon jàppal ci yow lay dellu si kon nit ki reetaanaate di xeebaate dafa teel ci doomu aadama te reetaanaate nag baaxul moo tax muy ne képp koo xam yaa ngi reetaanaate nekk ci ba dee boo dee yàlla duma la wa zina ak njaalo te dëgg xale jigéen te daganu la njaalo ci bët am na njaalo ci làmmiñ am na waaye njaalo tamit ci pëy am na njaalo dafa xaram waaye ñun léegi defatuñ ko dara comme naan ndox ñun fenn léegi Sénégal ak njaalo moom daanaka ndox ndox ndoxu naan lañ ko def léegi nii nii waaw njaalo dafa xaram te koo xam ni defoo ci moom li war waaw ndax jigéen bu daa ngi te war a génne li war ba def ko ci moom waaw fekk joxe woo can gi ba ñu dem jàkka ja ba ñu mel ki la war a may may ko nag am na ñu fi may ñoo ngi sëy te ñooñu kenn sëyut dañuy njaal parce que ki leen war a maye maye wu leen waaw kii may jigéen bu dee jànqale noonu bàyyam moo koy may wala bàyyam joxe ndigal ñu may ko waaye dem ci sëriñ bi rek mu toog rek mu xool ñaar taalibe yi may naa leen ngeen ànd sëy foofu njaaloo fa ne waaye sëy daanu amu fa wala bu fa sëy am day fekk ñu nekk ay jeeg mu nekk xale bu jigéen bi nekk jeeg xam ne mën na may boppam wala doomam may ko wala ku mu neexu may ko waaye koo xam ne mënul may boppam di jànq kenn du ko may moo tax mu ne wa zina ak du dugg àjjana yéen ci yàlla musal yàlla xaraamal na ko wa nazar ak xool ila aljanna bi jëm ci xale bu jigéen bi jël sama bëgg te ko ci xale bu jigéen bi jëmal àjjana musamman moo tax gars yi première xool may nan la ko waaye deuxième moo tax naaroo ba mu jëlee bët bi te ko ci xale bu jigéen bi gars yi ne ko waa doo teggi sa bët bi am na mu ne ci benn laay te lislaam benn la wax waaw ba tey maa ngi ci benn comme comme dañu may première xool mu ne ci benn laa nekk ba léegi maa ngi ci benn ba léegi nekk gu ma ci ñaar maa ngi ci benn waaye nga jël nit di koo xool am na ñoo xam ni xale bu jigéen bi ñoo ngi koy jëlee sa engrais ba lañ koy jëlee topp ko moo tax xale yi léegi ñëpp koo ci a dañ parce que noo catu seen bopp sol loo xam ne ba nga tëllee bët yi ak làmmiñ dañuy wax ci yow dina xool làmmiñ boobu xamoo ban façon làmmiñ la bët boobu xamoo ban façon bët la moo tax it ku pour ah, pour ñu am ci kër day am problème bu ci am ci kër boo gisee un an deux ans nga dem sëriñ yow sëriñ nga dugg fa cat ma topp dañ maa liggéey sama goro bëggul sama njëkkee ma parce que cat moo jiitu ci yow te baaxul am na làmmiñ yoo xam ne lu mu tudd mu yàqu am na bët yoo xam lu ñu xool mu yàqu sharia loolu la xam ci yéen moo tax mu ni bu ngeen di sol sax lu seere sol leen lu xaw a yëmbax ba nit du mën a wax ci yéen mais nga sol leen ni dëng dangaaral ni dung dungaaral kenn xamul li ngay niru ci àngal bi jara di wax fàllu di wax saaribu di wax ibu gay di wax kenn ku nekk lami na ne bokkuloo moroomam di wax ñu jëmale ko sa yaram boobu waaye boobu dee fan daanaan nga waaye moo tax sëriñ ñoo sëriñ xale jigéen ñi fay dugg dañ maa catoog yéen a ñoom ñoo catu seen bopp parce que ñoom ñooy def li tax ñuy wax ci ñoom te làmmiñ bi wax ci yow xamoo ban façon làmmiñ la yaay tax bët yi di xool ci yow xamoo bët yi di xool ci yow xamoo yan façon bët sol yoo xam ne da ngay tëdd sax ni waa xanaa kii yooyu nag moo leen delloo ginnaaw moo tax ñu xool ci ñoom mais nag ñoom ñooy may góor ñi di tax waxatuma sax góor ñi di wax ci ñoom mais jigéen ñi moroom sax lañ dafay wax ci moom ndax parce que seen façon solin bi mu ne wa nazar xooy ila àjjana bi di jëm ci xale jigéen bi loolu xaram na mu ne wa talaazu bi kalaama ngay bànneexu ci waxam waa nga seeti xale bu jigéen bi nga seeti ñi ngay waxtaan muy wax ngay wax nga ciy di ko tàgg fukki yoon eh, maa ngi ñibbi de boo doxaatee trois baatu xabaar ci loolee naka affaire yi naka kër gi yaa ngi muy wax nga ci sàcc plaisir doo mën a dem soo waxee ñaari baatu xabaar ne ko booy maa ngi a dellu si waat di di di di di télésus boobu yaa ngi ciy bànneexu kon nag loolu mbiru loolu xaram na soo ñëwee ma tax mag ñi dañ daan def naan sera nee na doxaan du yàgg doxaan doxaan dox ànd la da ngay ñëw boo ñëwee boo soxlaa tey boo ñëwee da ngay nekk ci ci ci ci moom mooy saal bi waaye léegi nag boo ñëwee yor tuuti wéccit ñëwee yaa jeeg pap da daal jàll leen ci biir waaw parce que léegi xaalis mooy mooy mooy mooy diri àdduna bi boo ñëwee taxawal karkar soo sa jardin soo accès du ñu wax mukk yemal ci saal bi teg attaqué danaa jàll ci biir xale jàll ci biir néeg bi et far doolu ko ci biir yow wala de wuli dugal ko ci biir waaye pour nga pour nga ñëw ñu toogal ak sàggu te Cheikh daan naa ne booy doxaan abal ko àndal ndax Serigne Mar sa moom Serigne Babacar nee na jigéen ak góor ñaar dong laa ci wóolu ñu ne kan ak kuy doog a ak kuy doog ñaar rek laa wóolu ci nekk ak jigéen ñaar ñi dong laa ci wóolu ñu ne ko kan ak kan moom Serigne mu ne kuy doog a jong ak kuy doog a kon fa tabaarakallahu li ñu cërloo ci waxtu bi mat na. ñu ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yéen jàmm ànd ak jàmm di rek di nuyu di jéggul nag émission yu passé tax defuñu ko dañu xaay am woon loos buy métti wax dëgg yàlla xaw a lool moo tax gisu leen ñu moo di ñaan yàlla rek yéen yàlla defal jàmm ànd ak jàmm alaxira nekk ba Kër Massar di ci euh, euh, maam Diarra Bousso tabarakallah di doomu maam Thierno Bousso boobu di sama sëriñ di ma fàttali ko loolu di ma Allo Mbaye sama jarbaat boobu di sunna ñaan fa tabarakallah di nuyu nag sama xarit sama sopp sama doomu day sama lépp di xaaj galas ñaan nekk bu itaali ahmadam jooju dama ñaan di leen ñaan yéen yàlla gën a dolli seen teraanga yéen yàlla di gën a dolli seen xéewal di ngeen ma joxoon ba léegi jeexagul fa tabarakallah yéen yàlla gën a dëgër di ñaan yàlla suñu sëriñ si fi nekk yëpp yéen yàlla taxaw leen nuyu sama soxna soxna Dieng yéen yàlla guddal fan nuyu fa tabarakallahu euh, soxna Soor moom it di soxna ci Babacar Dia di ko ñaan yàlla yal na yàlla taxawu ko moom it nii sama yaay bopp bi di Collé Ndiaye nekk ba Dagana di ñaanal sama papa yal na yàlla gën a doon leeram tey moo doon bisu ñaanam di sàkku ci àdduna bi yëpp ñu ñaanal ma ko yal na yàlla teel ko ci barsax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp boolaq naa ñëpp seen xarit seen soppe al oustaz Ibrahima Diarra fii Salam Vision ànd ak seen émission bi al ilm wa taalim kii di ki nga xam ne moo doon réalisé émission bi di soxna Zeyna yal na yàlla gën a dëgëral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Bienvenue sur Salam Vision.